mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. Ousmane Sonko euh, demoon na ca Mbour démb fa la yëkkatee ay kàddu wax na na ci yu bare bare bare tudd na ci Amadou Ba ñaari euh, rapport yoo xam ne épinglé na ko euh, ba tudd daal ci ay nit yoo xam ne dañuy naan ba ñu suy xëy di saaga nit ñi itamit wax na ci mille milliards yi mu wax ne mi ngi ci compte ba loolu xaw naa jur coow ci média bi àllaa ji koy junj léegi ñoom bi ñu xëyee ci loolu lañ nekk di ngañ ngañi ñu déglu si lëf te dellu si waat. xam ngeen biñ ñu débat ñetti fan ñetti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accordu ci débat bi mu dëgg a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum bu xat dëgg waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na te nee na rapport mosu koo épinglé moo wax leen ni ñaari rapport nu mu tuuti tuuti benn bu benn bu inspection général d'État ak beneen boo xam ne dossier 94 milliards yi ngeen doon dégg ñaari rapport yooyu leen na ko wax lam ca def moom xam na te dinañ ko publier ba sénégalais gis ko set dañuy wax ni sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw waaye bu ngeen gisee ma ne ko ñëwal ñu débat parce que ñun dañoo bëgg politique Sénégal ñu teg ko ci qualité xëy di wax waxu ñàkk fayda ñuy wax fa fële ndakaaru topp ci deru nit ñi di wax suba ngoon loolu du politique yéen su ngeen ñu toppee xam ngeen lu tax parce que ñoo leen njëkk taxaw ne leen bi ne leen gaz bi ne leen lempo gi ne mbay mi wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax ngeen topp ñu. moo tax Sénégal yi dañu war a exigeant ku dem ba di waxati politique rek nañ ko ne kaay nga wax ñu yow ci mbay mi wala ci càmm gi wala ci pêche bi kaay nga wax ñu sa gis-gis lan la waaye am na ci ñoo xam ne bés ba ne ñi nga wax te baccalauréat amuñu ko baccalauréat nañu publier seen CV baccalauréat amuñu ko bu ngeen gisee ñuy wax loolu ñun dañu bëgg politique bi ñu sellal ko politique mënul ñàkk de temps temps ñu xaw cee def tuuti xorom sax waaye saaga ak xasteeg ñoom seen bokkul ci politique ku amul xam-xam rek mooy xëy dem jël ay butéelu kenn xamul naan ba xamul fu mu ne ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politique moo tax ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen nag ñaareelu poñ bi ma waxtaan ak yéen loolu man la ak yéen mooy jeunesse bi ak ñun ñii dama koy tënk ci benn poñ mooy émigration clandestine maa la leen gërëm bu ngeen nee maa leen tere mbëkki mi ngi noonu euh, jaajëf xam naa ni euh, ni nga koy waxatee di topp am na photo boo dugal moom Assane Mesre bu la waxatee da ngaa seq bi rek moom xam naa ni yow waaw mi ngi noonu xam naa ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax. Assane. xam naa dañuy ñëwale ba ci mbirum cent milliards yi nga xam ni bi ñu xëyee nee na kur ci réseaux sociaux yi gis naa ay rajo yu ciy wax. xam Ousmane tudd na ko fa. tudd na itamit euh, daal épinglé gu ñu épinglé ñaari rapport yu épinglé Amadou Ba ak euh, daal tabarkaale yooyu noonu. waaw am na solo. diglu nañ ko biig diglu naa ko biig ba mu jeex ndax maa ngi si doon bàyyi xel. Ousmane nag day campagne day politique te it lépp lu mën a def pour gagner rek dana ko def kon mën na maa jàpp ni loolu mu wax ci rapport Amadou boobu moom politique la rek boo xamante ni wax na ko ndax bu fekkoon ni du politique du ci wax du ko waxee foofu ndax tey jii bu fekkee ni Amadou ngi laaj muy laaj mu xamal leen ni kii di leen laaj de euh, rapport épinglé na ko mu yor seen alal. wala daa épinglé eh, na ko maanaam jiiñ nañ ko te loolu ñu ko jiiñ de bu fekkee am na li muy laaj bu ngeen ko ko joxee dana dana dem du ngeen ci man dara kon bu leen ko jox kon bu fekkee ni eh, wax na noonu mën nañoo jàpp ni loolu politique la mu wax ko eh, en tout cas daal day politique dañ ko koy nangul buñ bu nekkee ci campagne moom kàddu yooyu yëkkati rek bu fekkee ni li mu wax ci géej gi loola moom lu muy diggee la ak loo xam ne ña nga ca moo xam ñiy napp moo xam ñiy nappe moo xam ñi nga xamante ni dañuy dañuy génn réew mi te ñu bari ni bàyyi nañ ko ndax yaa ñu ko tere ñu ngi toog di la xaar loola moom mën nañoo jàpp ni lu mu leen digle wala lu mu tàmbali ndax wax na si yoo xam ne jot nañ koo def si six mois yi ñu teg si bët. Mhm. mais bu dee li mu wax si nit loola moom politique la ndax waxut si kudut candidat. Mhm. candidat la waxal. Euh, bu dee si xaalis bi li wax noonu euh, ñi ma si dégg man ñoom ñëpp nee nañ loolu mënut a nekk. waaw ah, loolu milliards yooyu mu wax ne si compte bi la nekk. 1000 milliards ah. nee nañu loolu mënut a nekk si ab compte. nee nañ loolu ah milliards kon ci lu muy nekk. ah ma si lu mu nekk mais borom xam-xam ñi nga xam ne jàpp nañ ne ay borom xam-xam. si ma ci kenn. Alassane Samba Diop. Alassane waaw. Ah. ok moom nee nañ day liggéey ci wàllum xaalis maîtriser na ah, wàllum wóoruma de Ousmane daa wax si penc mi ñu tontu ko. waaw xam-xam moo tax. ma ne si tax man la Ousmane daa lii fekk nañ ko si ab compte loolu soo woon ku mel ni Famara moom moom boo nee borom xam-xam la parce que am na xam-xam mais euh, Famara la tudd yaakaar naa de daa ñu ko invité fii ah la sax su ma juumul démb sondage bokk na ci Famara moom su doon moo la wax loolu ma ne Famara mii maîtriser na mbirum banque ak xaalis ak lu ci mën a jaar ak lu ñu ci mën a denc mais Alassane moom am na xam-xam ci journalisme mais est-ce que maîtriser na loolu. lan mooy journalisme hmm? lan mooy journalisme. mais dafa am matière da ngay dégg. Ah. xaaral da ngay dégg journal sport. économie. nangam nangam nangam. Hmm. moo tax ma ni. mais moom ban ban journaliste la moom. Alassane hmm. mais dama ni xawuma ko ci côté bii laa nga wax. non ko ci benn côté. ci ñëwal. Alassane Samba Diop kay. ñëpp xam nañ ni. kon 1000 milliards mu 1000 milliards mënut dem ci banque. waaw journaliste bu ko ëpp xam-xam nekkut si réew maanaam dafa xajul ci banque wala banque. ku nee na maanaam ab banque da ko ab sapte. ab sapte d'accord. mill milliards mënut a dugg si ab compte banque boo demee sax Sénégal wala bitim réew milliards yooyu ngay dégg ñaan may nañ ko Sénégal wala lebal nañ ko Sénégal xaj na si ay ambulance lañ ko def mais du aw si compte banque. ambulance <laughs> ambulance wala si bato bi mais du banque ndax loolu banque nu mënut jël 1000 milliards ambulance wala bato. <laughs> waaw ba ñoom ay borom xam-xam lañ waaw borom xam-xam yee ko waa 1000 milliards. ambulance. ambulance fu mën a jëlee 1000 milliards si bato bi dañ koy def mu ñëw Sénégal ndax loolu dugg si compte banque nee nañu mënut a nekk si compte banque mënut a ne ti faaxan kon nag xaalis boobu may dégg ñaan jëlee nañ ko bitim réew jamonoy Macky jamonoy Sonko jomaay bii bërki démb suñ demee siin xam naa si bata bi dañ ko jaarale mu ñëw wala avion. mooy 24 milliards yi waa ok kon 1000 milliards mënut a dugg ci kon. mënut a dugg ci kon. kon lépp luy ñëw nañ leer ni si bato bi lañ ko awale mu ñëw. ñoom ay borom xam-xam lañ ñoo ko wax joxe hélas. Hmm. mais sa xalaat li mu la jox sa sa analyse mooy mënta na. ah man xam ma si dara de. mais sa sa jàngat man da xam naa loolu xam nga yow da ngay wax ci penc mi dama laaj dama ni sa xalaat li mu la jox mooy mën na nekk. man benn milliard sax laa mos sa gis baal bi ma am benn doog xam. benn milliard parce que waxuma la ci sa am am yow de dama ne li na ci penc mi te ma tegal la ko ñu bokk ko di ci wax. Hmm. loolu laa la laaj. ah xam nga kii dañuy gis nañ. Hmm. si benn compte gis na. waaw xam nga gis nañ nag moom dafa am lu muy laaj. gis naa moom bakkan lay laaj. waaw. dégg naa benn ministre bu ñu si laaj ni ko yow Ousmane Sonko li mu wax noonu mënta ne. Hmm. mu leen Ousmane mi ko wax xam na la tax mu wax ko. bu fekkee mën naa nekk xam na bu fekkee mënta nekk it am na lu tax mu wax ko maanaam sabab bu wax bi ngeen di xool. mais bu leen ni amul. d'accord léegi nag nañ ko bàyyi dina si indaat ay leeral. d'accord. Mm-hmm. jërëjëf kon milliards yi ñu def ci ambulance yeeg yooyu nañ ko ba te xool feneen fu ñu ko def waaye ambulance moom nañu ci xool ñu feebar ñi ñu def leen ci. Mm-hmm. Ndiogou. noo gisee discours Ousmane Sonko bi démb dafa mel ni daal am na ci yu mu génne yoo xam ni nekk na débat ci réseaux sociaux yeeg lenn ci rajo yi nga xam ne yaa ko doon wax léegi. dafa mel ni mm-hmm. ñàkk programme tax. ñu ne ko cas di daw ak moom. Oh. il me développe silence. Mm-hmm. waaw mm-hmm. bismillah waaw xam nga eh, Ousmane Sonko débat bi muy wootee mm-hmm. wax ji muy wootee gars yi duñ ko ci fekk duñ ko ci fekk waaw parce que li tax gars yi duñ ko ci fekk mooy waaw eh, daf leen a woo ci débat xam-xam xam-xam maanaam pour ñu wax politiquee xam-xam te ñii tàmm ñëw politiquee xam-xam liñ tàmm politiquee mooy xastante ok mais tàmmuñu di politiquer. xam-xam ok waaw loolu mooy li nga xam ni boo booy seetaan gars yi da nga leen di yërëm da ngay xam ne amuñu matière Ousmane nag dana ñëw jox public bi lu mu soxla yëngal leen classe. Mhm. dóor fii dóor fële gars yi bégee mu ñëw ak ñoom nag ci programme. waaw da koy wax sax. parce que dafa am lu mu wax. danaan waaw danaan lii politique la cokkaas ci la bokk cokkaas ci la bokk ak yooyu. Hmm. maanaam daf leen di jox yëf yi. Hmm. bu paree nag loolu public bi da koy soxla. Hmm. nga galvanise troupe yi. gaa yëpp ki gën a yeewu bu ñu kiiwee nag ba pare nga wax ak ñoom xam nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum xam nga pareen saa yi. nit ñi da ngay dafa amoon technique de communication bu extraordinaire. Mhm. maanaam par nit concentré wu pendant des heures di la déglu yombul. xel bi day jékki-jékki voyager. Mhm. moo tax bu jekkee jékki rek nga dégg baas bi nit ñi ree day delloo siwaat ñu bari reetaan googu. Mhm. am na ñu doon nelaw am na ñu doon kii ñoo ñëpp dañuy dellusiwaat. léegi nag mu continuer moo tax pareen saa yi nga sax répétition di am ci yenn kii pour ñu déggutoon dégg. Mhm. li nga xamante ni moom la nit ñi di ree. ci loolu technique de communication loolu nga xamante ni moom la Ousmane Sonko def it kii de communication la ko am mais mhm. du wax ni Amadou Ba. Mhm. ay rapport kii nañ ko sànni ko noonu pour taqal deram parce que tamit euh, Ousmane Sonko li tax nit ñi topp ko. Mhm. mooy yi ñu ko weddiloon démb yëpp yu ci bari tey biñ ñëwee dëgg gi mi ngi koy jox dëgg donc yi ñu doon weddi mhm. kii wut donc yooyu mu wax noonu parce que lu jëm ci nit directement loolu kii la yoo xamante ni bi mhm. euh, lu lool la quoi ba ci kim am leen te woon ba dossier bi rey ay nit waaw pour wane ni moo am dëgg waaja daa daw génn réew mi waaja na génn kon xam te dañ ñu woon dossier boobu Ousmane da ko wax waaye amul caaxaan la kooku daw na xam nga yooyu yëpp dalay wan rek ne caaxaan gi fi mu tolloon. d'accord xam nga pareen saay àddina euh, affaire yi ay kii la quoi ay niveau Assane. Euh, xam nga Ousmane Sonko dana fekk nañ ci benn conte mm-hmm. mille milliards. Mm-hmm. waaw léegi boo toppee ci règle yi nga xamante ne bi moom la banque yi teg. Mm-hmm. li nga wax nii mooy ñëw maanaam ñi wax loolu yëpp mooy ñi nga xam ne dañoo topp ci règle yi. mais kay ba mu sàccee mille milliards rek la génn les règles yooyu. Mhm. nekkatut ci règle yooyu fi nga koy xool dootoo ko fa gis. parce que sàcc na ba pare mille milliards. parce que loolu bu ko nit sàccee ba pare rek. Mhm. nekkatut ci règle yooyu nga nekk muy banque nii naa. li ngay jël maanaam ñoom faamara bu ñu ñëwoon it. mënuñoo mhm. gis yëf yi. parce que bokkatuñu ay ondes. banque cinq mille la mën a yem. <laughs> kii li Elage di wax daal comme ça ñu ne. Ah, yi loolu la. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais ñi nekk ci ay règle règle yooyu lañu xam. Mm-hmm. mais ñi nekkutut ci ay règle xam na yeneen règle yu bokkut ak règle yi ñëpp xam. yaa ngi dégg. waaw mais li neex ci nguur gi booy. Euh, daanaka léegi bu ñëwee wax lii. Mhm. léegi nag ñi nekk ci règle yëpp dañ naan non li mu wax c'est faux amul loolu mënul nekk nii ak nii di nga laaj sax benn banque yi mu na la noonu mënta ne parce que mën nga liggéey ci ab banque sax te xamoo yeneen règle yi parce que du ñëpp du lépp ngay xam. waaw yow da ngay nekk am na foo xam ne foofu la. ni ñu koy xam accrédité xaw ba am na am na fu mu yam am na yow niveau boo yem foofu nga war a xam. Mhm. mais am na foo xam ne fii waroo koo xam. dégg naa la Ousmane nag fa gars yi warta xam moom la xam ba wax ko. man amal na ko ay lay daal. léegi nag gaa yi buñ toogee te ñaan non c'est faux loolu mënul nak parce que li li li kii bi indi ay texte indi la ki mais génn na texte yooyu. nekkatut foofu. ku nekk ci banque sax àttan naa defub leeral. génn di def leeral te fekk moom am na daa am fu mu yem bu buy def leeral li mu xam lay wax mais dafa am lu mu xamut. nit dina liggéey ci bërëb ba jóge fa am na lu bari du ko xam mhm. parce que bokkut ci ñi ko war a xam mhm. pareen saay sa comportement mooy tax doo ko xam sa kii mooy tax doo ko xam dañ lay teg rek ci benn angle boo xamante ni lii nga war a xam nañ ko fa yemale buñ demee nag ba yëg ni kii kat am na loo xam ne ñu ne kii est-ce que buñ ko dugaloon ci kii ñëwaaw war nañ ko jéem a kii dañ lay tester jéem a xool jox la yenn yi mhm. bu si toutefois que ni mu ñu commencé nag di la xamal yenn yi. ok léegi nag bu ko defee rek ci ngay soog a xam ne ndekete man damaa nekkoon fii di liggéey mais xaw ma woon dara ndekete kon lii yëpp am na fi. d'accord boobu nag yaa ngi soog a ñëw nag ci mbir yi. waaw foofu nag la soo Ousmane soo ko di waxee. ok mhm. léegi ku ko mën a woyofal ci bopp nit ñi wala nga mën koo jox ci dégg-dégg. mais léegi ki ko wér loolu woyofal na ko déggoo ni ko waxee. na xam ne ambulant yi junni <laughs> di ko waxee di ko waxee. loolu banque moom 5000 lay jël. waaw waaw jafe ni mënut a weesu léegi naa ci banque 10 hmm. jaar. foo jaar léegi day jaaxal ñu. dem ah, lu ko xam da koy ah. jaaxal. loolu la ah, ñu ni waxul dëgg parce que 5000 la yam. mu ni man denc naa 10 000. sa booy man xam naa li ma la xool gis nga. banque sànq boo demee dañ lay tegal yëf yi nii la. Hmm. Mm. fekk na yow nekkul yow yow règle yi nga jàng yaa ngi yem ci mm-hmm. dix mille cinq mille nga yem. Mm-hmm. am na yoo mm. xam ne xamoo ko. banque yi li ñuy def ci suuf ak yooyu am na ci bari loo xamante ne bii gars yi xamuñu ko grand public bi xamuñu ko de ñu tuutee koy xam am na ñuy liggéey sax ci milieu ba te xamuñu ko. waaw xaalis boobu ñuy may laa fu muy jaar. Mm. xaalis bi ñuy lebal ak yooyu fu muy jaar. yëpp am na fu muy jaar état yi tamit nag <laughs> yuy jokkale état yuy jokkale te nga naan xaalis bi ñuy may fu muy jaar. <laughs> ginaaw du jaar si banque <laughs> ah da ngaa yaakaaroon rek. Ah, banque ginnaaw 5000 lay yem nu fi nu fi xaalis boobu di yaare ba ñëw. mais yow en tant que maire chroniqueur loolu wul laa jaar. jaa xam na ma de. léegi doo ko doo ko gëstu. waaw ah, baax na baax ma jógee fii ma def mathématique. mathématique <laughs> jërëjëf.